Sima TV man maa leen bëgg. bilaay suñu ànd bi moom sincère na. Euh, Demba man nag sama première question day jëm ci euh, Demba Guissé pourquoi quatre ans successifs déjà 2016 la tàmbali Sorano su ma juumul 2017 mu def 2018 la tëbal 2019 def nga mais depuis boobu boo defee dafay am succès Sorano toujours Sorano mm-hmm. ba léegi gisaguñu Demba son grand théâtre te mu mel ni. artistes yi nga xamante ne bii sax ñëw yàlla nga carrière yàlla nga ko niveau ñu ngi somb grand théâtre pourquoi dem miser wu toujours ci Sorano est-ce que dem dafay continuer pour tout loolu aussi bëggoon naa leen ñu si ay leeral beneen bi mooy pourquoi Demba Guissé moom dafay def autoproduction gis nañu la amul label booy liggéey say moyen bopp wala say moyen nit ngay génne pour def li nga war a ñu ngi contacté Demba Demba moo liggéey ak label wala da nga bëgg rek di nekk ak say yëngu bopp beneen bi aussi dinaa si ñëw mooy sa digganteeg Baaba Maal am na lu ci am ñu bëri xamuñ ko bëggoon naa aussi nga leerala ci ñi nga xamante ne bii tey ñooy toog ñu seetaan sa digganteeg Baaba Maal lan moo leen liyee d'accord euh, première question bi euh, première question bi ban la ban la avant juste mooy. Sorano ok tout le temps Sorano bon boobu répondre naa ko répondre naa ko répondre naa ko dinaa ko waxaat aussi que mu leer que mooy bi may dem Sorano dew ma woon pour mu fees walla ak yooyu quoi titre bi ma soxla woon mooy man ma bokk ci histoire Sorano bi nga xamante ni que ndaanaan yi nga xamante ni Père Guissé Pène jaar euh, lim na lim na ni jaar na fa toujours ma ne euh, Sorano am na chance bu grand théâtre amul. ndax ndaanaan yi fa jot a jaar tey lu su mel ñoom ay suñuy papa euh, kii laay Mbu papa Ndiaga Mbaye ak ñooñu ak ndaanaan yoo xam ne aussi ay international ay dégg euh, ok ba ma demee keroog di laajte bañ bañ may wax ay ay euh, Jackson Five famille Michael Jackson e, e, expliqué yoo xamante ni que mosuma ko woon xalaat donc tey titre bi ma soxla woon mooy comme que Sorano bi ko fi Léopold Sédar euh, Senghor defee ba tey donc am na chance yu ndaanaan yu mag yu kenn xamul woon tax man fekkee ma seen génération jaar nañ fa ma ne man quoi pas man ma bokk si ñu jaar foofu ba ëllëg tey lu ñu def tey ci soraano mbaal tey bu bu livre bi génnoon tey sama tur nekk ci biir xëy na chance boobu la grand théâtre amul loolu laa wax benn ñaareel chose bi ma ko defee yàlla dogal euh, première année ñi defal ma Demba Guissé a réussi son pari à Sorano deuxième année ma defaat ko troisième année ma defaat ko ba quatrième tey mu bëgg ko defaat tey donc nekk maa ngi koy wax toujours que nekkuma si tendance su fees naam feesul parce que man xam naa ni Sorano bii ni ni ni nii déjà bii jeex na donc werante wu ma ba xam dina fees ak dina dina fees damay léegi xool ci côté euh, spectacle ak yu mel noonu quoi donc li ma fa yóbbu woon nag du parce que wax naa ko keroog nee naa tey déwén sax su ma neexee ma dem si CICES wala sax ma dem Grand Théâtre mën a nekk ah. su ma neexee tamit ma dem yëngu leen donc amatuma lu muy prouver biir Sorano pour que dama koy tëgg wala dama war a changer quoi maa ngi wax sax keroog benn site internet ma ne ko ndax léegi nag xam nga pour léegi nag ñu bañ ma laaj boobu question xëy na déwén nag ma dem grand théâtre xam nga mais quand même du woon dara quoi dama doon xool ni rek bon euh, euh, foofu euh, même sama côté fay bi may fay xëy na Sorano moo gën a oyof ci man lépp mu ngi ci ñi ñi ngay wax na comme ci xale yi sax peut être ñenn ñi maanaam jiitu ci musique ak yooyu ak yooyu dépendrul foofu ndax nit nekk na fii ba am âge am ba retraité te musul jaar Sorano nit nekk na fi di soog a egg si tey salaamaaleykum mu dem Sorano donc yàlla mooy tëralee noonu ay mbir dégg mais dépendrul ci kii parce que mën nga am talent te fekk mënoo feesal sax yëngu leen mën nga ñàkk am talent sax nga feesal Sorano sax nga si nga feesal sax euh, euh, euh, esplanade bu Grand Théâtre foofu mais man kam li ma fa yóbbuwoon titre bi la donc saa su ma fa demee mosuma am ak ñoom bor mosuma fa am benn problème donc lépp fay naa ko comme ni ko Père Guissé Pène waxee donc loolu moo tax ma fay delluwaat te nag li wolof di wax ni li nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyee moo tax bàyyiwuma ko <laughs> ok et puis je pense que c'est pas très important mm. ay il faut pas il faut pas que ñoom ñu se dans la tête que c'est c'est une concurrence de kan moo jiitu sa morom man je dis tout chaque jour à la jeune génération que le marché c'est pas aussi il faut que ñu arrêter de concurrencer wu entre ñun aujourd'hui chaque année ñu recevoir bi ay jeunes yoo xam ne seen propre âge lañ ñoom ñooy ñëw di def fii ñoom bu ñu jouer grand théâtre bu ñu ñëwee esplanade la leen di jox ay stade yi wala c'est qu'aujourd'hui, il a un plan de carrière qui muy développé. Aujourd'hui, c'est de d'Embo Guissé, autant d'années, il est toujours là. C'est ça, je pense, que le, le, le, le plus, plus, grand défi. Donc, Taï, mon mini def loolu moo jara loolu moo am njëriñ le fait de jouer au Grand Théâtre wala Sorano benn spécificité la mooy aujourd'hui il est capable de mobiliser te comme grand bi mu la y a pas une grande différence entre le Grand Théâtre le seul truc mooy immensité wu bâtiment bële ak bële lu benn loolu

te je pense que vidéo yi boo duggee tappe tappe dem ba gis Abamako doo gis da gis ne nit ñoo xamante ne ñooñu tey ñooñu xajuñu grand théâtre dégg te pourtant mën naa ne majeure partie bi yëpp man maa leen indi parce que nag xëy na Sénégal sax waaye Mali moom wax dëgg yàlla meloon naa fa noo xamante ni que euh, loolu loolu loolu dafa doy waaroon xëy na nag boobu temps en 2010 site internet yi bariwul donc trop ba ñu mën a bindal ay affaire demoon sax ba ñu kaas ni dem euh, euh, Demba Guissé ak euh, concours bi mu def yëpp ak ñi mu jot a éliminé yëpp ci ci ci ci ci bi mu demee représenté Sénégal pourquoi gars yi affaire lu ñu woon loolu mais xëy na 2010 ak léegi je pense que def na 10 ans xëy na boobu site internet yu bari feeñu loon waaye tey tey la ñu am chance tey ba site internet yu bari tey xëy na bu doon tey tey visible dina gën a génn quoi ok parce que beneen question bi mooy mooy mooy ok label xam nga label moom dépendre foofu nit nekk na ci label sax te bu te te te bu wootee fii nit ñi duñ ñëw yaa ngi dégg donc du ma décortiquer yu bëri ba yaa ngi dégg dépendre ci loolu bëri na fi artistes yoo xam mosuñ jaar ci label ah du ma citer artiste mais xam nga leen nekkuñu si benn labelu kenn donc ñu ngi toj Sénégal donc dépendre loolu label nag c'est très important ci artistant ah, moo xam label Sénégal moo xam label Angleterre wala États-Unis wala fu mu mën a nekk quoi mais quand même euh, waxtaan jot naa am peut-être ñu ma jotoon waxtaan ak yu mel noonu quoi mais quand même bu fekkee ne maa ngi gis sama bopp ba fi ma nekk nii pour man label bu ñëwee tamit du ma ko bañ ça dépend rek ci waxtaan bi bu ñëwee bu ma arrangé arrangé suma staff ak suñuy manager ak ñu may liggéeyal ñu liggéey bu fekkee arrangé ñu ñu dem parce que nag euh, maa ngi sant yàlla. <laughs> Demba da nga généreux rek mais il n'y a pas de label au Sénégal il faut il faut se dire la vérité ay catalogue moo fi am c'est-à-dire des gens yoo xam ne ils sont là ils ont leur catalogue d'artistes xamante ni ñooñu doog lay liggéeyal point final c'est pas c'est pas un label label c'est un contenu label c'est autre chose et même pour revenir à la question de Tafa vous connaissez Bercy c'est un exploit de remplir Bercy mais c'est un challenge de faire le Bataclan alors qu'il est tout petit Youssou Ndour

du du comprendre ne li muy jàpp ni euh, euh, euh, maa ngi ci di ko def fekk na am ni ñeneen ñu ma ko dénk moom nag toujours day bëgg affaire bi defaru ba baax dafa naan ma kaay woo ma laaj ma fekk te yoo bañ ko sonal moom mooy tax quoi mais quand même lu may def rek moom daf may woone ma jaarale ko nii te su ma jaaree foofu aussi loolu laay gis nii parce que nag buy fàtt nag moom moo ma njëkk a dugg ci côté aar xëy na ay musique ak ay single ak vidéo yooyu man. man maa ko si njëkk a def mais côté art moom euh, fecc ballet théâtre ak ay taasoog yooyu yooyu la njëkkee woon waaye nag bi yàlla dogalee comme man ma ko gën a sopp ma topp affaire def ay affaire xam nga après ma woo ko ci mais man gis naa ni lu ma def man kese su ma ci àndee ak moom double lay nekk waaw ah, des fois sax ma sànni ko xeer ne ko dama lay dimbali mu ne non noo man yow laay dimbali xam nga mais quand complicité boobu noonu moo moo moo moo am solo surtout ñaar ñu bokk ndey ak baay tey euh, conférence de presse bi xam naa ñëw man kese. waaye moom def cee bokk parce que mën naa ne lépp lu ma engagé maag moom ñoo koy defandoo mën nañoo nag dóorante nag ba mu saf sàpp ci ci werante bi mais après dañuy mujjee euh, trouver benn terrain d'entente ànd ci liggéey bi mel noonu quoi. waaw ma tont ma tontu foofu tuuti rek euh, pour ñu xam ko dem maa ko magee ñaari at parce que nit ñi dañuy foogoon moo mag dama ko bàyyee mag gi mais pour xuloo par exemple sama yaay moom mooy sama yaay yaay mënoo génn sama diggante ak kii. dañuy xuloo gi tangaas parce que li ma bëggul mooy moom peut-être ni may doxee ak moom ni muy doxee du benn moom dafay bëgg dax garaawul kii wax na ma ma ne ko déedéet dem na kii wax lii nii man damay wax ni loo wax loolu nga war a def donc dafa xaw a day xaw a moom day bëgg demal boppam dama ko wax non non non faut nga ñëw nag di xalaat parce que dem lu mu la laaj léegi nga bañ ko ko jox mu bàyyi koog yow dem seeti leneen côté boobu lay demee te que le fait ñu di ko néewal doole nag ci yu bëree bëri yooyu laay bañ lu si bëri daf ma koy nëbb moom dama jékki-jékki si moom dara ma du ma ko woo sama rakk yi ñoo ma koy sàcc naan ko ma ko moo ko ne ko dem ba dégg naa kii lii ak lii la la def waaye yow kii mu ne ma déedéet du noonu benn bu ko expliqué na ma ne ko non aar bi il faut nga am caay-caay mm-hmm. soo amul caay-caay dañ lay néewal doole te man nee leen sama rakk la ñoo bokk ndey ak bàyyi ku ko néewal doole man nga néewal doole kon man lu ma fekkee faj ko xanaa lu ma yëgul mbaa lu ma waaye ku ko laal man mi ngay laal <laughs> waaw kay ku ko laal man ngay Sma TV man maa leen bëgg bilaay suñu ànd bi moom sincère na